المنتقى وجهت في النكار ذكرا به قد كبكب المكار للمجتبى وجهت في السفينة قبل صنا يخلد في المدينة asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi siyaar mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fu nu mën ci biir réew mi ak ci bitim te jiital si nuyu beeg ziar bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te wér lool. si jotaay bii nga xam ne li ko waral mooy fàttaliku màggaluk jullit gi gi julli gi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim jullee woon ci géej gi ci bi muy dem ci tukkeem bu barkeel boobee. muy bis boo xam ne kenn dootu ko fàtte ba ilaa yomi diin bis boobee Serigne Saliou waxoon ne mooy bisub waa Ndakaaru kon ku ne xam ne ne Cheikh mu Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi ni ñaan mu yàgg fi loolu te wér at yii yëpp ku ne xam ne da see joxe woon gannaaw ba mu jiitalee soxna Soodu Xumba mi nga xam ne moo jiite liggéey bi waaye ku ne xam ne ne at yii ñu weesu ñaari at jàpp ñetti at ci ginnaaw dafa woo Sëriñ Yuusu Jóob ba mu ñëw mu daal koy booleeg soxna Soodu Xumba ne ko dama bëgg nga jàppale ko ànd ak moom ci liggéey bi kon ca loole la ndigal gi wàcc ba ak ci ci mbokk taalibe bi yëpp. rawatina ren nag am tew tawféex joo xam ne sëriñ bi da ko sey defaat mooy ndigal gu yees yoo xam ne Sëriñ Muntaxa dafa wax Sëriñ Yuusu ne ko nan ko def bisub xasida bis boo xam ne lépp dañ koy dundale xasida yi siñ Tuubaa kon ku xam ne ne boobu ak léegi Sëriñ Yuusu ak Sëriñ Lamin Juuf dafa jox ndigal Sëriñ Yuusu fal Xayri ak mboolem waa daar al adabul mardi yi ndax seen digganteeg daara ji di lenn loo xam ne Sëriñ Muntaxa si boppam moo mboole woon histoire ak adul mardi ci doxin wi ci pas-pas ak ci seen lépp moo waral booba ak léegi naka jekk ñoo bokk doxin waaye sëñ Yuusu xam gim xam loolu moo tax mu bëgg koo ànd ak waa Adabul Mardi kon ci tur woowu ca la ñuy waxee dinañ jox kàddu sëñ maam As mi nga xam ne kon na xam ne moo fi teel waa daara fédération Mawahibou Akyas muy fédération boo xam ne ñoom doonu nekk ci université lëkkale mboolem daara université yëpp noonu yi kon ne xam ne ne sëñ maam Thierno maar mi nga xam ne ku na xam ne ne moo nekk fii ci Daara Arabul Mardi di coordonné liggéeyu bu am solo bii nga xam ne kuréel yeeg rajaskat yeeg ak ak duruskat yi nga xam ne yàlla dogal na mu ko doon coordonné ci gox bii ñu nekk moom it dinañ ko jox kàddu bu defee mu indi ci ay kàddu leeral ak soññe ak woote ak leeral lu bëree bëri ci liggéey bi bu ko defee incha allahu rabbi siñ seex yaale mi nga xam ne moom it dinañ ko jox kàddu moom it mu wax ci turu mboolem daar yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi bu defee it sëñ Abdou Lahad Diba mi nga xam ne ku ne xam na ne moom moo fi teewal Daara Histoire teewal fii commission culturelle bi nga xam ne ñoom ñooy taxawu programme bi ak bisub xasida boobee nga xam ne ni ko sëñ bi bëggee mu ànd ko sëñ Lamine Diouf ak ñoom sëñ Pape Assane moom moo leen fi teewal moom it dina jël kàddu ci turu daara ji ak ci turu euh, commission culturelle bi nga xam ne moom ca la nekk. kon képp ku nekk ndakaaru nga yëngu ci xasida maanaam ci kuréel wala durus. di ko di ko dund ak noo ko a dundee rek di am murit ñu ngi lay woo ci bis bi euh, daanaka buñ ci tuddee Safinatul Aman benn bu bu bu bu Kër Masar nga xam sëñ Saadi bi moo ko jiite tudd ci Safinatul Aman bi nga xam ne daanaka mooy fédération bi nekk diggante Mbaaw Grand Mbaaw Fass Mbaaw Petit Mbaaw ak Jack Mbaaw ak fédération yu fa nekk rek na nga xam ne appel bi kon ci ñoom la jëm da da daara daara euh, Nuuru Daarayni bi nga xam ne ñoom itam xam nañ leen ñu nekk rue 10 daara Miftaahun Nasri nga xam ne waa Kër Sëñ Tuubaa fi HLM nga xam ne mboolem daar yi nga xam daal daa daara yu mag lañ ñu xam leen ñu nekk fii ci biir gox bi waaye daara yu mag yi nga xam ne xam la ñu nekk biir Ndakaaru yëpp ñu ngi leen ñu ngi leen di woo def ngir mboolem ku nekk Ndakaaru te yëngu ci xasida nga xam ne si Muntaxa lim ñu digal te bëgg ko mooy képp ku nekk Ndakaaru te yëngu ci xasida xasida defal la dara mbaa nga xasida nga koy dund ñu ngi lay woo ci bis bi di jël kàddu si troupe Mouwahibou Akyasi moo xam mooy daar joo xamante ni moo lëkkale mboolem université école de formation ak institut yu nekk biir Sénégal te ku tudd mois bi OCAS mu ngaa tudd université yu mag yëpp comme lu mel ne université bu Bambey bu nuru Nourou ni université bu Saint-Louis bu Mafatikul Bichri université bu euh, Thiès Diarrabatou Toulab ak université bu Dakar muy mañ Majmahun ni ak bépp mboolem université yu fi nekk rek suñ tuddee si ñooñu rek xam naa dina xamante ne ñu leen di woo nag si euh, jullib géej bi na xam ni ren. dañ see jox wàll gu rëy si mois bi ak yaas dañ kaa boole si ñuy taxawal bis bi nga xam ni lépp loo xam te ne dafa jëm si liggéey suñ Tuubaa ñu la si woo loolu kat jar naa euh, daw ba sa sol ay dàll wen daw ay kilomètres ngir fekkee ko kon ñoo ngi ciy woo mbokku taalibe yëpp ñoo xam ne bis bii suñu bis la. nga xam ne képp ku yëg kàddu gi rek nga xam ne mooy sa woote waaw kay ci fàttaliku jullit géej gi liggéey bu am solo ndax géej gi moom mooy moo tax ñu jëriñu tey waaw ndax amaana bu échecoon rek lii du am kon mbaaxam gi moo yaatu ba toll fii ñu ci woo ñépp muy góor jigéen mag ak ndaw daare bu si ñëw nga indi sa kuréel indi mbokku taalibe yi nga xam ne bépp membre bu mën a ñëw rek ndax bis bi dañoo bëgg mu dund lool ci xasida ak zikru la waaw ndax bisu ndakaaru la bisu ndakaaru la ndamal lislaam la it. ku ne xam na ni lii sababu daje bi nekkul dul kéemtaan gu réy googu donte sëñ mag bi jàpp jàppewu ko kéemtaan moom la xam defoon na ko ci géej gi. kon day doon le vingt ak le 20 le vingt ak le 21 septembre 2024 ci place Diamalaye kon ci loolu ci la sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké joxewaat ndigal ni kat moom bëggul mu mel nenn ludul ñu dundalee bis yooyu. ci xasida yi jàngum alxuraan kon ci taxawaay woowu ci la jëwriñ sëñ Youssou Diop joxe ndigal daara ji mboolem foo xam ne woote ba war na fa àgg ndax ku ne xam na ne xasida yi moom ñi ko fiy dundal murit yi dañu organiser wu dajaloo ci ay fédération ci ay daayira ak ci ay confédération kon ci loolu ci lañ ànd ak suñ bokk taalibe yu baax yi day doon bisu ajuma ji di la vingt dina tàmbali 9 heures mise en place li ci des durus alxuraan lay doon ak durus xasida yi ak loolu lépp ànd ak yëkkati gi muy kuréel kuréel yi kuréel daara yëpp ci biir euh, ci biir dëkk bi di Ndakaaru kuréel Hizbut Tarqiyyah yi tamit yëpp ginnaaw ba lañ ci boole ci lañ tàllale suñ loxo xam ni kat tawféex la goo xam ni ñëpp ak ko bokk. ci suba gi ba tàkkusaan dinañ xajal Baay Faal ñoom tamit ñu feeñal seen yéene zikur la fas yéene fanaane bis boobu. xam ngeen ni fi ñu ne mooy Masaalikul naan sëñ Mbàkke yu fay nekk jëwriñu sëriñ bi ci ndakaaru ak jëwriñu sëriñ bi nekk ci gox yëpp ñoom ñëpp ñu bokk ànd ci ndigal loolu kon ndigal loolu rek lañuy jéem suñu kem kàttan jéem ci jottali ko jullit yi jullit yi yëpp jéem ci jottali ko mbokk taalibi yëpp ndax noonu la ndigal li demee mooy ñu fas yéene jottali ndigal li mu yegg fépp ci ndakaaru sunu kem kàttan loolu nag ku nekk ma nga ca ndax gis ngeen woote bi waa commission julli géej gi def gis ngeen waa axlu xasida ci njiitalu suñu am sa mi nga xam ne moo moom mooy jëruñu xasida yi te moom la ñuy defal lii loolu sëñ bee ñu ko jàngal ku yëngutu ci xasida yi rek moom nga koy moom nga koy moom nga koy defal ñoom gis ngeen li ñu def woo woote nañ ko ñunit ci loolu ndigal li ñu ciy jéem suñu kéem kattan kon ñi ngi ciy woo ñëpp tey déggu kàddu gi te di ko fàttali ñëpp li ci ëpp solo nag mooy dundal gi Cheikh Abdou Lahad ñëw na ci léegi dundal ko ci ni ko sëriñ bi bëggee mooy fas yéene rek yëkkati kàdd suñu borom te santale ko ko sante ko sëriñ bi loolu nag ci defin ko defin ni lislaam bëggee rek ku fa ñëw na la sëriñ bi rek yëkkati waaye ñu ngi woo daara yi bu baax a baax woo nañ leen sax waaye ñu ngi leen di gën a woo ci ndigal li ci ci ci durus ñi koy yëkkati ak ñi nga xam dañoo nekk ci njàngum alxuraan bi sant nañ ci bu baax a baax a baax lépp luñ ci mën daañ def suñu kéem kàttan te xam ni nag ñoom ñi nekk ci kam kanam muy soxna Sooda ak sëñ Yuusu mi nga xam ne sëñ bi jiital ba ñu jottali ñu lii te ndigal li di lu wér te di liggéey sëñ Tuubaa nañu dalal seen seen xel xam nañu ndongo yi daañ taxaw ci kanam jëfee ndigal li ba mot sëkk te sëñ bi lim ci bëgg dina ko am. kon jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi ñoo ko déggandoo kàddu yi nga xam ne moo fi jib yëpp si jataay bu tedd bii ci wàccaay woowee nga xam ne moom moo ñu tax a jug muy lan màggalu julli géej ci dëppoog weer yu ñu ne ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci septembre bii ñu nekk incha allahu rabbi ajjuma nag la programme bi tàmbali buñ xëyee 9 ñaangum alxuraan bi ak ñaangum xasida bi dina jib ànd nag yëkkatib kuréel gi ak mboolem yi nga xam ne dana fa am te ñaan daje see ngërëmal sëriñ bi ak tawfiix sëriñ bi bu ko defee kon xam naa dañuy jox sëñ Mouhamed Gueye mu sànni ci ay bayit rek ñu daal di tëj incha allahu rabbi haraba minni qablu fi karambasa mubarisi wali siwaaya xubisa ملكني المالك عند داومي ما قد كفاني العدا تساومي نفعني النافع في لبرولي بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجعت عند بأفلي قبل بما به أنار محفلي Azinu